parce que ku xam Lac Rose rek dañ naan Modou Lo Lac Rose la dëkk yéen ngeen président yéen ngeen am fitu dem fa fi booy bi di entraîner wala fi roi bi di entraîner yéen ngeen dem dëkk of of Gambie waaw of of John Waar lu pour Modou Lo moo moo valide pour lu valable ci Modou Lo moo ñëwaat ci Siteu ah. dañu of Gambie of John Waar Gambie yàgguñu fa bi yoon comme ni ñu fa tàmmoon doon yàggee januar itam bi yoon demaguñ fa. waaw ñu ngi concentré wu Lac Rose. lu te mu leer leen ni Modou Lo mi ngi Lac Rose président. waaw mais xam nañ ne Modou mi ngi Lac Rose. mais Xaadim mu ngi wax mais dafa mel na kuy nappe. ah day nappe de. mais foog naa ni man mënu ma napp parce que problème bi mooy. waaw Lac Rose boobu ñu nekk ñoom defe naa ne man maa leen ko gën a miin.

miin secteur ba trop nag. dëgg la muy côté boo xamante ni yéen fu ngeen dëkk ni tey jii bu ma gëmmee mun naa jël benn par benn par nangam nag. bare ah. na fa site yoo xamante ni man maa ko. moom ak Modou Khoule. ah kon xam nga. waaw dëgg la dëgg la non c'est vrai. donc pour dëggal li nga wax ne vraiment milieu la boo xamante ne yéen vraiment sportif bu nekk aussi war na fa mun a nekk jàpp nañ ne ñun tamit aussi war nañ fa mun a nekk jonwaar lu baaxoon ci ñun la. parce que préparé nañ fa am fa ay ndam am fa ay ndam mais dafa am tuuti loo xamante ne neen ñun war boole ci suñu préparation bii te amul jon waar moom moo tax ñu jël. mooy lan mooy lan lan ngeen non non wax parce que xaadim moom. ah wax na leen. war a takk. non xam nga moom ay pël yi muy wax waaw Lamine nga suñu rawaan wax nii ci ñàgg ak ñàgg dë. kenn ku ci nekk bu ma demee tey ji mun naa la wax kër ga nga dëkk foofu. mais grave ci naa ah mais grand bi jaxasoo. grand bi li muy wax nii dafa jaxasoowul de. xaadim déggoo waa ji boo muy tuulee yi muy wax. xam nga waaw boo muy tuulee dana fa dem ñu ko lu baaxul ci moom. xam nga rawaan bi xam nga rawaan bi ñun la wuyu. waaw parce que bi ñu fa ñibbee. Ah. toog nañ fa ñaari at yoo xam ne kenn gisuñu. Ah. yàlla def ñu indil ko roi des arènes. Ah. rawaan bi nag daf ñoo téye. daf leen mujj téye lak ñoo xam. mais dégg nga moom li mu la wax. mais kër Marème Mbengue bi muy wax nii. waaw cité na ko sànq kër Marème Mbengue boobu. waaw Marème Mbengue boobu sama bàjjan la Eh. non ñoom kër simbiri lañ nekk. déggal mu ni kër xam naa fi man dama bëggul tudd fa ñun xam ñëpp xam nañ fi ñu dëkk. non non non yéen fi ngeen nekk. ñun fi ñu dëkk ñun ñëpp xam nañ ko. te pare boo lu lu bu may mu nekk. avant combat bi moom mi yow mi ñun lu xew dama ne waa la ak loolu dama bëggoon xoolal dama bëggoon ah dama bëggoon ah sérieusement ñu def ko benn bennal bu kii waxee kii tontu kii waxee kii tontu parce que président am na fu mu jàpp foo xamante ni nii ah. dégluwoo ko ci biir wax bi ah. parce que boo dégluwul président doo ko tontu président dafa ne lagros boobu ngeen nekk noonu moom moo ko dagg mu yokkal la ci ne la bu ma fa doon tey bu ma gëmmee mën naa la ne lii ak lii ak lii ak lii ak lii ak lii comme daf lay me daf lay bëgg wan ni njëkk fecc taxuti mujjee géew yéen a siiwal Lac Rose mais ñoom ñoo leen jiitu Lac Rose loolu la la bëgg a wax ñun fa lañ dëkk suñuy njaboot fa lañ juddoo Modou fa lañ jëkk a ngénte dama lay wax ñun Lac Rose ñëwuñu fa léegi Lac Rose dañ koy yàq parce que teewul loolu damay profité aussi damay profité aussi xam nga ñëw foofu loolu ngénte fa wala yooyu non non maanaam ñun fa lañ dëkk bokkul nga saj yow camp d'entraînement yow États-Unis bu jeexee bu dañuy ñibbi ñun bu ñu feetee suñu victoire ba pare guddi gi hmm? xar yi Lac Rose dañ koy rayee donc ku ne xam na ni Euh, euh, Lac Rose c'est notre fief te am na mbër ma fa duggoon am na lu ko dal ba poom otoom damm. kan la ban mbër la. ah Boy Niang yaakaar naa ne bu mu làmb juru làmb ji booru Kër Modou la doon defaree otoom boobu ñun ñoo ngi ci biir stade. jege na leen nag ñàkk nga la nekk <laughs> na leen donc non moom jege ah? mais ku fa foofu moom li ma lay wax rek damay profité tamit. doo daan bala xamul waaw waaye ñun xam nañ doo yàqoon oto bi maanaam nuyu ñi nga xam ne ñoo dëkk foofu yëpp. léegi léegi li may wax rek li may wax rek mooy grand bi waaw vraiment grand bu bien la <laughs> mais dafa dugg ci kombaa boo xam ne xamul ampleur u làmb ji ah lu tax combat royal non grand xamu ko parce que mi ngi doo ko ñam loolu ñun dañ koo ñam ñamati ñamati dañ koo ñam ñamati ñamati te dama lay wax benn mbir yàlla euh, dafa am loo xam ni sunu borom moo koy jox doomu aadama mooy lan moom mooy nomba tànk moo ko wax ne kulillahuma maalikal mulki tuuti mun ko man tasaaw wa tanzilu mun ko man tasha wa ti man tasha wa ti zillu man tasha bi yeddikal xayri innaka ala kulli xayri say xayrin xadim moom ci jëmmi boppam. loolu yëpp dëgg la mais. xam na bi yadi laa yuuti man yashaa. oh xam na ni xam na ni ñun luñ téye. waaw xam na ni luñ téye pare pour joxe ko. te Siteu ñun ñoo ko may loxo bi ñu naan ñu bari fooguñu ni làmb ji dina am bii ampleur. parce que ñu bari dañ jàppoon ni mais Modou ak euh, ak ak ouverture ak lecture ak bëgg may xale yi chance ak bëgg a xale yi ñu am dara moo tax Modou dafa dafa dafa dafa dafa jayoo. bravo mais yéen a ngi ñaan ki nga xam ne nee na may. maanaam yéen a ngi may koo xam ne ñaanu leen nee chaque fois dañuy ñëw ci benn affaire. waaw moo Modou dafa may Siteu chance Modou dafa may Siteu chance mais ku nekk xam na ni peut ku nekk roi des arènes koy bëri ku nekk may nga ko chance. mais ñun dañu jàpp na ñun ñoo leen may chance. ñun ñu nga xamante ne demoon nañ ba bugg a signé contrat ak beneen mbër. waaw dem ba àgg fa ñu war a signé. c'était presque yuuxu dim ne dimbale leen ñu pour ñu jël leen parce que bu ngeen jëlee kooku. te ñoom dañu déclaré ñu ñun ñoo leen may sans sans. ñun dem nañ ba war a signé yéen ngeen woo Mansour. ne <laughs> est-ce ñun liñ gis ci télé bi dëgg la wala du dëgg ñu ne en tout cas daal demoon nañ. grand ngeen woote dugg génn dugg génn. ñun ñu xam ne ñun aussi tamit fii ñu jàpp fële lañ jàpp ne moom moo ko gën. ñu retourné ñu mais kon yéen yéen a chance te ñun duñ ko wax. ñoom